asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi asalaamaaleykum waa Fatick asalaamaaleykum chers internautes tey waa Mindis ñoo leen andiloon seen benn émission bu bees tak tak tak ñu naan ko li ci xarit boo déggee li ci xarit nag ëmm na lépp ëmm na xaritoo góor ak jigéen xaritoo jigéen ak jigéen xaritoo góor ak góor ñu ñëwoon tey fii andi leen ci émission bu bees tak tak tak ñu def génnee chaque samedi incha allah fii ci Mindis TV bu leen raté dinañ dem fu ne Daaru Salaam Nduuk Dareel quartier yëpp dinañ fa ñëw incha allah dinañ ñëw waxtaan ak yéen. li ci mën a na parce que dund nañ ko côté bu ne. dund nañ ko nu ne gisee nañ ko nu man moom am naa xarit mais sama xarit bi jiitu suma yaay la. Ah, sa yaay léegi ñun xam ndax yow am nga xarit bu góor wala xarit bu jigéen. am naa xarit bu góor. waaw am naa xarit bu góor. xarit bu jigéen nag. sama soxna. sa soxna la waaw mooy sama xarit waaw. sa soxna mooy sama soxna waaw. waaw loolu moom baax na waaye yéen a ngi diisoo di waxtaan. xam nga mun nga ne xarit sa soxna moom mun sa sa lépp la. sama soxna moom. bu def la xam lu may dugg daf koy xam lu may jox mu tuuf vraiment. à sa soxna nga am nga xarit bu góor. léegi ba mus ngeen am ay problème wala mus ngeen am ay affaire da warante <coughs> am nga xarit moom daa ëmbul lépp. waaw d' accord musuñu am warante parce que man du ma ànd ak kenn ci ay caaxaan affaire yi nii man li ma dund ñu seet ñu def Merci beaucoup. salaamaaleykum sëñ bi waaleykum salaam. dañoo bokk liggéey rek. Ah, ñu wàcce àndandoo waaye xarit lañ on peut dire ça. Ah, ci xarit. loo xam moom am na solo. waaw parce que xarit confidence la. waaw noonu laa ko mën a définir de. ndax am nga xarit jigéen. man du ma ne aw ma nag waaye nag non xam nga xarit moom dafa xaw a kii koo xam ne nag da ngeen di échange di partage loolu mooy xarit non bien sûr que j'en ai énormément ñu bëri sa waaw dañuy gis mhm. ah ay possibilité la rek ça dépend rek question de confiance yeeg yooyu ak yooyu loolu kese la de. Ah, ah, waaw rien de mal là-dessus ah waaw parce que bëgg moom. confiance la boo demee nekk ak nit ki ba wóolu ko tamit nga am ci moom cofeel ak sentiment pourquoi ne pas lui avouer ça loolu kese la y' pas mal là-dessus de souci kontaan naa dégg nañ Gara bi wax. biir li si ah. xarit. nag ëpp na ah. xarit góor xarit ak jigéen jigéen. Mhm. ñu bëggoon laa laaj ndax am nga xarit. am na xarit kay. am naa ñaar yëpp mais góor ñi noo ëpp quoi. dañuy gis bon ça dépend rek parce que question de Nobel moom question chantiment la ko euh, mun na jógee ci ñëw ci ku nekk bon mais euh, en général moom su fekkee ne xarit ngeen déjà pour xarit bi dëñ amour bi dugg yombul quoi waaw. bon pour samay xarit moom en général dee sama côté moom teg naa ne yombul nu jote parce que mooy loolu man yomb ma téye ay meex suñ ma liyee aussi su ma xamee ne coow daa am naara bëri man je préfère ma jóg déplacé wu bàyyi ba coow bi calme ma del dellu siwaat nga xam ne ñun ñëpp dinañ nekkaat ci jàmm mieux vaut nag ma toog di tontuwante ak moom parce que loolu day gën a yokk kii. Mhm, bëri naa non euh, soo dina am que chaque jour day am euh, de meilleurs amis mais aussi am na benn koo xam ne chaque jour ci moom ngay wéeru ñeneen ñi peut dina am loolu mun di séddoo ñoom mais nekkul ne lépp lépp ci ñooñu ñooñu ñëpp koy yëg il faut mu am kenn koo xam ne moom nga gën a jox confiance wala moo a gën a jege parfois aussi milieu bu ngeen nekk moo koy tax parce que nit ki mënul nekk exemple yow nga nekk Fatick kee nekk dakaar nga bugg a moom yenn affaires yi donc kii jege la moom nga gën a mun a séddoo yenn yi. bu ma Moussa wax non Ah, ok merci. déggu lañ ay xarit euh, yu ànd ak man euh, sans complaisance à chaque fois su ma naree déraillé ñu teg ma ci yoon ñoom aussi saa yu ñu naree déraillé ma teg leen ci yoon. merci sëñ ok merci non non je suis de Thiadiaye. du ma meer dimbale ma rek waaw maa ngi ci jàmm bu baax noos bu yem rek man Fatou Faye laa tudd. yaa ngi woon seen benn émission li si xarit. laaj ah. la ndax am nga xarit. man sama borom kër mooy sama xarit. mosoo am xarit d'enfance wala genre. an kay am naa ko kay. waaw. <laughs> <laughs> loo ci xam waxal sa xarit boobu noonu loo leen mujjee da ngeen bàyyi da ngeen. déedéet da ngaa sëy si fàtte ko wala. déedéet sëy si ma fàtte ko ndax day ñëw ci man. day ñëw si yow waaw. ba seen relation ah, neex na. neex na moom. mosoo leen xiiroo mosoo leen. déedéet mosoo am xarit bu góor. déedéet. sa jëkkër kese. waaw loolu neex na. waaw. <laughs> am na xarit. naa xarit waaw. yaa mhm. am nga xarit bu góor. am naa xarit bu góor. waaw xarit bu jigéen moom non wóoluwuma xarit bu jigéen dafa wóorul rek jamono ji quoi non xarit xarit la mais jamono ji quoi moo ko laaj quoi. waaw jamono ji léegi comme dafa wóoradi xarit bu jigéen moom bon mooy loolu dama koy am nag mais ba ça à un certain waaw mais bon waaw mënta ñàkk nag quoi am na mais bon. xaritoo bu njëkk ak bu léegi dama ne ça ne peut plus pas ce ne sont plus les mêmes époques quoi. waaw wax ji bari na. waaw xaritoog jigéen ngeen taxaw nangam nangam ñuy xalaat leneen. lu bokkul ak li ngeen seq. Ah, waaw non non non xam nga gars yi fépp nobante la ñuy gis. loolu la ah, mm-hmm. mm-hmm. ah. <laughs> salaam sëñ Ndata Ndiaye. dëgg la waaw mos naa am xarit ko ah gisee wuñ ko lu baax rek waaw. non non loolu am na dañ koy wax nag fii moom lañ ko wax Sénégal parce que dañ naa xarit góor jigéen amul waaye am na waaw am na moom parce que naa ko non mënut a ñàkk nag waaye après ñu àndaat waaw xarit daal lu si gis daal jàmm laa si rek waaw des fois mu gindi la waaw xarit daal moom baax na daal dañuy xaw waaye baax na waaw c'est que nit ni ko gisee mu xaw a garaaw des fois ñu gisee ñu gisee ne waaye man la gisee ma ko lu garaaw waaw ok jërëjëf maaleykum salaam man du seen laa tudd bon da nga xoolul bu baax mais balaa nga ñëw am na plaque bu wone ne fii nii bureau boo xamante ne boutique la buy euh, bu ñuy wax ne tout pour le bureau nga xamante ne ne boutique informatique quoi nga xamante ne boo fi ñëwee lépp loo soxla ci informatique da nga ko fi fekk quoi mu waaw bon waaw maa ngi koy am maa ngi am ay xarit yu jigéen ay xarit yu góor. waaw yooyu yëpp dina ci am mais heureusement man daluma ko mais mais am nañu ñu muy dal non non non non bu ma ko nobee dama koy wax parce que man dama yàgg am fit quoi ah. waaw. góor noonu noo bariwul lu mu am loolu vraiment ci xarit yi moom mosuma ci am problème daal wax dëgg yàlla waaw ay xarit yu bari laa am. waaw woor na parce que lii ay xarit yu bari laa am wax dëgg non mosuma ci am problème merci beaucoup. maaleykum fii laa di saaf. xarito maanaam xarito moom koo nekkaal xarit moom xarit dafa jafe de xarit il faut nga gis koo xam ne yéen a nekk di defandoo di dóorandoo xàccandoo am na ñoo xam ne xarito ak àndandoo dafa am sa àndandoo moom mun ngaa xam moom sa vie privée mu dem waxi ko sa xarito nag day am bàmmeli biir loo wax mu yem ci seen biir di defante lépp sa sa yaay sax day nekk sa xarit am na ay xarit kay kii sax sama xarit la sama càmmeñ la sama xarit la parce que ñoo bokk liggéey bi waaw politique bi affaire yooyu yëpp déedéet xaritoo day am fu mu yem xaritoo moom boo amee jëkkër dangay xam ne kii sama xarit démb la mais tey damay sëy damaa nekk ci buumu sëy xam nooy defeek moom parce que góor moom xel mi motut am na xam ne booy defar sa xarit ah bu yàggee dina ne kii daanu banteeg sama jabar. xale yi moom seen affaire dafa luus àdduna beeko laaj xale yi seen affaire dafa luus léegi parce que ñoom suñu dund ak seen dund du benn ñoom dañoo jàng lépp was bi lañ koy defee di def seen yëpp bokkut ak ñun ñun bu njëkk am na luñ doon rus xale yi léegi na rusatuñu dara loolu xëy na dañ cee toll seen jamono la. nekk waa émission bi fii lay yem gis nañ jaaykatu gerte yi jaaykatu beñe yi ñëpp woon ñëpp a ngi woon ci biir ñoo leen di jox dig daje weekend prochain incha allah si seen chaîne Mindiss TV la chaîne leader numérique